بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد ok asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal at tawfiq di ñaanit suñu nuyo bu fekk leen ci jàmm di suwaa nan ak yéen ci seen fàttali bés bi ngeen ciy ànd ak seen mbokk Mouhamed Fall Pikine Babou Salam te di talaata di 25 août 2020 di dëppoog 6 muharram 1442 suñu dégg ka Ashura di tam xarit des ñeenti fànn yàlla nañu ko borom bi fekkeloo ñu doora ci ñaan gi te moo di ni allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد yàlla yàlla nga julli ci sang bii di Muhammad waaye yàlla nga julli ci waa këram comme na nga ko defee ci Seydina Ibrahim yàlla aji sant nga aji màgg nga jayid xadiisul yow qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi taala malaikatan sayyaxiina fi l ard yuballiguni min ummati salaama rawahu nisaa'i wa saxhu albani yonent bi sallallahu wa sallam nee na yàlla mi màgg ta kawe yàlla mi màgg ta kawe dafa am ay malaaka yoo xam ne nii dañuy wër ci kaw suuf dañuy wër fépp ci kaw suuf di jotal xeetu yonent bi seeni nuyoo di jotal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni nuyoo maanaam nuyu yu xeet yi di nuyu yonent bi sallallahu alayhi yàlla yabal na ay malaaka yoo xam dañuy jël nuyoo yooyu dem jotal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di fay nuyoo yooyu ko mbokki jullitam di nuyu loolu mooy lan mooy nuyoo yi mooy julli gi ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi sallam te xam ngeen ne julli mooy mooy ñaan ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy nuyu ko te xam ngeen nuyoo ñaan la kon képp ko xam ne julli na ci yonent bi na yëg ne yonent bi fay na ko te xam ngeen ne ñaan ak yonent bi salaa sallam borom ndax borom bi subhana taala moo ñu sant ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhana taala wax na ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla nee na man mala man borom bi subhana taala maag samay malaaka dañuy julli ci yonent bi kon joxañ bi ak santaana gi mooy ngeen julli ci moom kon ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim innaka hamidul majid ndax julli ci yonent bi njëriñ yu baree baree bari da cee nekk te mooy bokk na ci njëriñ rek ku julli ci yonent bi yonent bi delloo la ko te yonent bi ñaan googu mu lay delloo yàlla du ko delloo kon yàlla ñu yàlla nangul julli yi ñu julli ci moom waaye ñaan yi yonent bi sax di delloo tam yàlla ñu ko yàlla nangu te fulandiku xadis bi la day nasaa'i moo ko solo waaye albani wéral na ko wa axiri daawaani alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين